asalaamaaleykum sama gars ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax tey dañoo ñëwoon nag si arène nationale bi ku dégg arène nationale bi xam nga ne banlieue bi la nekk. su làmb amee gars yi dañuy ñaxtu rek sécurité zéro foo leen fekk gars yi ñaxtu si affaire banditisme yi agression yi tey bu làmb amee côté bi ñu fi dëkk ñëpp pour ñu génn problème la du ñu ñemee gàddu téléphone du ñu ñemoo teg greffage affaire daal doy na waar. tey dañ leen seet si woon ñi fi dëkkee pour ñu wax ñoom lu ñuy dund ak affaire bi ni mu demee nañ leen dem xool ba xam. Euh, chaque fois bu làmb tasee rek ñi dañu am problème euh, buñ génnee ful la ñuy def ñu yor seen i jaas yi ñu yor seeni paaka xama nga kun fii rek lépp la yor dañ koy nangu des fois ñu fekk ko koo xam ne ni taabulam la yor sax di jaay boo ñu jaar fa caxat caxatee lim yor yóbbu ko ci loo xam ne nii du la jariñ dara soo insister ñu gaañ la ci. xam nga te loolu tamit metti na daan ndax li olof Njaay di wax ay waay jaami waay jaami ay waay gis am na ñum neex am na ñum naqari lii am na ñum arrangé am na ñum arrangé wu loolu mooy problème mais li nga xam ne xas na am moom mënatoo ci dara da ñaan rek état moom mi nga xam ne moom moo njaboote lépp moom mu xool nu mu koy mesurer nga xam ne bu tasee kenn ku ci nekk di nga ñibbi ci jàmm ak salaam keroog dama toog suñ koñ làmb ji tas ma booy jaar fekk benn maire buy jaay cere ñu jël legetu cere bi këpp ko. Oh, xoolal loolu. yaa dégg for xeer dóor ci para bi su jàmbur wàcc ko fa dem yoonam xam nga tamit loolu. ñaaw eh, loolu parce que tey bu waa koñ ba génnoon leneen mën na caa am bakkan mën na caa tëdd wala dara mais chaque jour nit ku ci nekk yow yaay dawal compréhension boo xam ni xam nga xel yëpp bokkuñu yem su ñuy kooyee rek ñii kii nañ mais bu fekkee ne yow sam xel chaque jour lim la may nga koy demee rek. problème day daa di am moo tax nit ku ne looy def lu ne rek da ngay xool ndax say rakk ak say mag rek boo seet ñoom ñoo ci ne dëgg la kon jeunesse bi man li ma leen di ñaan mooy buñ mënoon a wëññeeku xool fi ñuy teg seen tànk tracer seen bopp yoon bu baax loolu dina gën a neex senegal pour kii daal ndax maanaam ndaw ndaw ndaw li ko soxla moo bëri ndaw dangay am foo xam ne boo fi toll li lay soxla mooy bëri mais yow ci ñi la war a defar société bi yow ci donte mag ñi ñoom seen wàllu wéy na mais yow mi nga xam ne yaay ndaw yow yaa war a toog nga ne lii man naa ko tracé ndax ëllëg nit ku ne ñaan nga yàlla am famille famille boo xam ne nii bu ñëwee dañuy nekk famille bu correct parce que tey jii nii nit ku ne li nga jaar ñaanoo yàlla yow sa famille ñëw di ci jaar ndax ku sañoon famille boo xam ne nii xam nga boo famille ngay am daal. dëgg la waaw laa mu amee fii moom wax dëgg yàlla dañuy sonn trop waa parce xale yi bu ñu ci stade bi dañuy ñëw fii di agressé. des fois sax xale góor dañuy taxaw fii téye seen yet pour buñ naree laal jigéen ñu dal seen kaw. un am làmb am na fii ñëw fekk ñu man ak sama rakk ji ñuy jaay fii léegi ñu nar ñu agressé yàlla moo ñu defal sutura léegi bi ma xale bu góor bi daa xewee ma daw dugg ci biir kër gi mu xëcc sama poset fekk maa ngi téye woon poset bi mu daal di ko xëcc bi mu xëccee rek man tamit ma am fit xëcc mu xëcc ma xëcc si laa daal di yuuxu xale góor yi nekkoon fii daal di génn. xam loolu tamit métti na trop. Eh, loolu métti na. waaw li ñuy dund fii daal moom métti na moom ku ñu si mënoon a dimbale moom ñu jël wax dëgg yàlla. waaw bi ñu fi defee poste de police bi la yàggul rek semaine bii ñu génn rek mooy mooy euh, dimanche bi làmb bi njëkk am. bi biñ ko biñ biñ tëjee làmb bi biñ ko ubbiwaat dimanche bu njëkk boobu xam naa dañoo am na moo làmb nag. waaw <laughs> suñ koñ bi moom macha allah dafa rëb trop ak xale góor jar jar xam nga rek yaa ma gën a xam waaw. buñ ci mënoon a daal ñu moom stade bi dëgg yàlla moom bu am làmb amee duñu ñemee génn suñu doom yi duñu ñemee génn dëgg yàlla dañuy tëj ba ni làmb ji di ñu toog fii di suñu doole di ut ñu yóbbu suñu kër wax dëgg yàlla xam nga buñ la ko jëlee nooy def. dafa métti dafa métti. dafa métti da nga daal di soom ak ni jamono ju mel nii. ak ni jamono ju mel wax dëgg yàlla buñ ci mënoon a dimbale daal ñu jël moom. ah métti na métti na trop metti na trop looy lancé. waaw maa ngi lancé appel. monsieur le président <laughs> nga jàppale ñu si waaw <laughs> waaw ñu dimbale ñu waaw waaw surtout ak Marème Faye Sall waaw na dimbale jigéen ñi surtout gën leen a jàppale parce que jigéen ñi amul amuñu lenn lu dul li ñuy jaay di fotaat yóbbu seen kër yi dimbale seen njaboot jàppale seen i jëkkër loolu rek lañ am wax dëgg yàlla suñu suñu jëkkër ñun tam ñoom tamit ay jàmbaar leen maa ngi leen sant leen gërëm surtout sama jëkkër nag mi Babacar Diallo waaw <laughs> euh, ñun fii euh, quartier bi euh, quartier cosaan la jàmm fi amoon nga dëkk si jàmm mais jàmm presque mën nañu wax ne amatu fi sur le plan de la sécurité arena bi bi ñu ko fi defee ba léegi sa euh, arène bi le samedi ou le dimanche du làmb tase da ngay ragal a sax jaar fii dëgg la agression bi xale yi day mel ni dañ leen xabtal am ni sax ñoo xam dañuy yéeg indi dugg ci kër yi di sàcc nit ñi metti na non mais mun nañ wax ne y a y a de changement parce que boobu avant poste de police bi ci la gënoon pire dama la wax ne avant poste de police bi xale yi dañ naan yëg mais euh, jaxasoo ak agresseurs yi ñuy yëg dugg ci kër yi di sàcc mais léegi sax na parce que gis naa man gis naa après combat yi ñu euh, sécurité topp leen mais ko ñun li ñu bëggoon xam li ñu bëggoon benn police fii ah, ok loolu benn police fii devant devant le stade mhm. nga xam ne du stade du tase ñu canaliser xale yi ku nekk war a ñibbi. loolu mooy yoon loolu mooy ndax sonn ngeen. waaw sonn lañ topp sonn lañ dañuy sonn trop bu làmb amee dimanche bi passé rek ba làmb amee ba ma ñëwee sama jëf si bi ci kër gi laa ko dugal ba xale góor yi romb ba dem ma soog mën a génnee parce que dañuy fi romb dañu agressé te xam nga ni jigéen amul doole. dañuy sonn trop buñ sañoon moom ñu gën ñu see dimbali bu baax a baax a baax fii moom benn sécurité amu ko. amul benn sécurité bari na ay bandi bari na ay ruq lu ne nga fiy gis man ma ñëw pikin ba léegi moom lu ma fi gis maa ngi koy soog a gis sonn nañ torop bu ñu sañoon daal moom Macky Sall jàppale ñu ci arène bi bu làmb jeexee xam nga talibaag ne mën na jaare ne si ginnaaw mais dañuy wiiri ñëw ba ci kër yi fekk fi jigéen ñi toog ñu ramassé lépp lu am sonn nañ torop bu sañoon daal moom ñu dimbali ñu ci bu baax a baax Macky Sall yow mi laay waxal bëgg naa nga dimbali ñu ci lii sonn nañ torop jàppale jigéen ñi.